auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ci group bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziare itam di dellu di leen ziare ci weer wu sell wi nga xam ne ci la ñu nekk te ngën di ngën di mbindeef di sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam gën a woon ci àddina yàlla dafa dogal ne dañoo xëy yam ci audio yi nga xam ne dafay wax ci wàllu eh, wàllu njaam esclavage boobu nga xamee ne mooy ëpp doole noot nit ki wala bu dee ci islaam ci histoire l'islam xeex yi doon am ñu jàpp ñenn ñi fexe ba goreel leen wala ñu goreel leen maanaam ñu dugal leen ci lislaam mooy ñu goreel leen rek et loolu dafa nekk euh, lu compliqué waaye lii delloo am réew gannaaw loola ca la bokk te loolu dinaa ci indi ay dalil indi ci ay explication mooy ne ab société dafa am lu muy tëddee dafa am ay classification sur le plan professionnel am yeneen classification yoo xam ni xëy na ci ay pouvoir lay doon lu mel ne société bu amee ba noppi ñu xool société bi nu muy tëddee kii ne lii la kii ne lii la ñu seet jongante ci ba président de la république am am ko lu ko nekk lu ñu ko toppandee loolu mooy doxal ab société waaye imma jëm mi ci biir société bi nag diw moo moom diw walla diw moo jënd diw est diw dafa ëpp doole diw ëpp koy mbokk gën koo muus pour jënd ko walla ak noonu la walla boog dañ ko def rek ci ci ci ci ci ci ak jaahil loo xam ni daal xëy na du xam-xam du lu kenn xam ndax du am dalil alors ci biir senegal ci wàllu njaam bi ñuy wax dafa am benn société boo xam ne bii ñu baax lañ ñu am taarix lañ maa ngi ciy ñëw léegi. dafa am benn société benn askan askan la sax du ab ndax société dafa yaatu wenn xeet laa bëgg a wax woo xam ne yi ñu ngi ci biir Sénégal yaatu fi lool seen histoire tam histoire bu noble ñuy ay jàmbaar di ay boroomi xam-xam ci fànn bu nekk. ñu duppee ko société joolaa joolaa ci boppam ci biir Sénégal amul tëgg amul géer amul géwël amul ñeeño amul it yàmm loolu joolaa xamuñu ko moo tax ñoom ci seen classification société dafa am lu ñu tuddee société égalitaire maanaam pénc moo xam ne mii gannaaw yàlla ñëpp yem loolu la joolaa bi di doxal séeréer yi am nañ ay géwal pël yi am nañu ay géwal euh, naar yi am nañ ay xeet yu demee noonu le wàllu njaam mais benn société égalitaire en Afrique moom mooy société joola xam xam ne nag swahili ñuy wax swahili boori Niger yooyu am nañu wax ne parce que loolu tam benn benn riwaaya la ñoom tam société égalitaire lañuy def laaj bi mooy est-ce que yàlla mën naa wax ci alxuraan wax ne dama leen a def ay shu'ub ak i xabaa'il lu tax li taarafu lu ci yàlla teg inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen gën cee tedd mooy ki gën a ragal yàlla ba noppi ñu dellu si waat daan ne diw moo gën diw mii man daal euh, euh, farq boobu bëggoon naa ñu indil ma ci ay leeral yàlla wax de nit waxul ne yéen ñëpp dama leen def ay ay ay ay ak i ay giir fi xabaa'il ngir ngeen xamante waaye nag xamante beeg booloo beeg société beeg li muy rëy rëy rëy rëy ki gën a tedd ci yéen gën ci yéen du du du yax bu rëy de mooy ragal yàlla ak moytu yàlla waaw léegi nan la yàlla mën a waxe loolu ba noppi nit tegaat ci comme suuf daal ni diw mi moo gën diw mi te loolu amul dalil bi ci def mooy boo demee ci société française maanaam euh, histoire France ak Europe ci boppam ni mu tëddee effectivement amoon na ay ay ay classification yu amoon waaye nag loolu du diine loolu moom day daal day day neexa day neexa raddu ndax du diine soo demee ci góoluwaay yi góoluwaa maanaam bu comme lu mel ne général de ku mel ne général de pour woo gis mu am dë prénom bi doog a ñëw wala nom bi doog a ñëw kooku noble la léegi comme francais moom dafa jóge ci làkku latin maanaam français bi ñuy wax nii dafa di maanaam lu ñu ŋaccee la ci latin daal ci créé waaye lu jiitu français yi di wax làkku français am na beneen làkk bu ñu doon wax ndax français yi judduwul rek di wax français de comme ni wolof yi juddoo rek wax wolof déedéet français dañ koo ŋàcce ci latin waaye ci biir latin bi histoire France avant ñuy wax làkku làkku làkku français dañ doon wax benn làkk bu tudd celtique la celtique ca la ñu jëlee français yi ña ko fa njëkkoon a doon ko la ci dëkk yooyu la ci ba ba France di door a tàmbali ñu am xam-xam doon ko wax nit ñi doo leen ko jàngale yore administration bi ñu ne ñii dey ñu ëpp xam-xam ñu teg leen ci kaw def leen classification sociale boo xam ne bii ñu ne ñii ñooy noble yi. waaye nekk noble firiwul na yaa ci gën alors ñu ne nag eh, fop ay prénom de nga xam ne ñoom ñooy noble yi après ñu ne ñii ay ñu ngi ci àll bi di bay naa nga métti naa waaye taxul tubaab bi tax ne ci boppam li muy nekk nekk nekk noble ki nekkul noble dama koo gën. classification la buñ la tegee ca kaw loolu ñu war ko bàyyi xel ñun ci suñ bopp ñun ñi nga xamee ne ñoo di jullit yi rawat ak africain yi alors l'islam bi mu doon goreel ay jaam d'après jaam bi nga xamee ne islaam dafa indi stratégie xool nu muy def pour dàq ko ndax fi la ko fekk l'islam fi la fekk lu mel noonu léegi bu fekkente ne kay nit ki comme ni ko Serigne Diop moom waxee léegi euh, dafa nekk ci tolof tolof boo xam ne bi effectivement Diop wax na dëgg ñu fexe daal ba goreel ko wax dëgg yàlla loolu ku ko def def nga lu baax pourtant grâce présidentielle am na am na ñoo xam ni ñu ngi ci kaso yi te la leen fa dugal njuumte la goo xam ne gi boo demee sax dañ leen a tooñ wala seen loxo jotul seen ginnaaw alors chef de l'état bu fekkente ne dafa jël bigam gracier téeméeri nit est-ce que day tax moom mu nekk seen sang déedéet donc dafa am lu àddina bi di doxee di évoluer loo xam ne ni ci l'islam tradition bi ci dugg muy aada ji ci dugg fii ci biir Sénégal moom ku ne la diw mii ay ngàll bant lañ comme ni ko Jóob waxe leen góor benn tànk la wala yu demee noonu da koo teg ci gën a muus ak gën a yàlla teel laa jox wërsëg nga am ñoo noot rek waaye amul dalil même ci société ni muy tëdde nii nii nii nii ceddo yi fi nekkoon pour seen nguur mën a wéy pour seen stratégie mën a dem pour xeex yi ñuy def mën a dem il fallait que ñu am ñoo xam ne ñuy xëy na dañoo mel ne man nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu xaw a nekk ñoo xam ne dañoo teel a tumuranke bokk ñu noot leen noot googu ñu leen noot nag daf doon gën a dëgëral seen nguur waaye amu ci kenn koo xam ne kii da nga dugg ci bàmmeel ñu naan la ko doon sa maam wala ci ban yax nga juddoo waaw rob nañ ko denc nañ ko dañuy xool ci ban askan nga bokk amul ci lislam waxuma sax ci lislam waaye ci logique sax loolu dafa daf ciy amul donc dinaa ñëwaat léegi rek dans cinq minutes le temps ma terminé bëggoon naa nag Aboubacar Diallo lu mel ni moom mu mu xëccal ma ci am mbedd moo xam ndax ma ciy laal ma ñëw ci histoire arabe yi histoire chinois yi ak Afrique nu mu tëddee ba loolu am parce que lii nii nii nii nii nii nii euh, jàpp ay nit def leen ay taara bonte sax xëy na amoon na wala boog am na lu ko expliqué mais ñu ko expliqué fu ñu ko teg euh, bu fekkee ba fan lañ ko teg est ce que teguñ ko seen teyu bakkan wala yu demee noonu lu doy waar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi déglu. mboolem li fi jaar rek ci waxtaan wi boroomi xam-xam di ko daje Cheikh Moustapha Rijal <clears throat> al oustaz Cheikh Jibril waaye itam ak eh, sëriñam bu baax boobu Cheikh Abdoulaye Cissé Khalil Cheikh Ahmad Tidiane waaye itam rawatina Cheikh Baye Gaye eh, waaye rawatina itam ki nga xam ne mooy al imam Cheikh Moustapha moom it ci leeral yu am solo yooyu eh, waaye naka noonu borom audio bii ma jàpp mu di Cheikh Maodo Faye xam naa nekk ay nit waaye bës naa ko déglu naa audio bi ba mu jeex waaye taxut ma mën a teggi sama loxo ngir dégluwaat beneen audio xam naa laaj yi ngay laaj de tontu ko moom dana xaw a doy waar euh, ku ko ñi yeewu xam naa la addis ba wax ne nit ñëpp ci ay nelaw lañu nekk saa yu ñu deeyee deewoo saa yu ñu deeyee rek daal di yeewoo <laughs> dafa mel ni loolu nga bëgg a waxal nit ñi dégg naa Cheikh Moustapha laaj la même chose la même question moom la Cheikh Moustapha Diop moom it laaj euh, waaye sax ma wax la ci wàllum jaam loolu euh, maanaam euh, kenn la ci <laughs> waaye ñi ñu tuddee jaam ci senegal boole ci tëgg ci la bokk ndax géer du ko takk boole ci wuude géer du ko takk boole ci ñeeño géer du ko takk boole ci ràbb géer du ko takk boole ci ak yooyu xeet yooyu yëpp ci yooyu yëpp ci ay jaam lañ euh, lañ leen di jàppee ci biir Sénégal ndax ku ñu wax ne euh, maanaam ab géer nga doo takkanteeg ñoom loolu moo di sunu feebar waaye li ma gën a frappé moo di ne xeetu joolaa woowu nga xam ne ñu ci ëpp bëri dañoo gëm ne sax ah ñi ci am nekk jullit bëriwuñu ñoom ñu fexe ba mujj mucc ci li nga xam ne moo di ay subuhaat ak tuutal sa doom euh, sa maanaam sa mbokkam jullit euh, loolu frappé na ma lool may laaj ràbb yi tëgg yi ñeeño yi ñi ñuy wax géwal wuude ak tëgg ñi ñëpp ku ñuy wax géer du takkanteeg ñoom moom la même chose li ñuy daw ci jaam bi li ñuy tuddee jaam moom la ñuy daw ci ñoom kon mu mel ni benn jaam la ñu reconnaître woon ci lislaam waaye ñun ci Sénégal fexe nañu ba am jot wutaat yeneen jaam yoo xam ne ñoo ko tëggal suñu bopp loolu lan moo ci seen xalaat euh, Cheikh Maodo. waaw euh, Aboubacar Diallo maa ngi lay <laughs> nuyuwaat laaj nga ba am laaj nga laaj ba am solo xam nga pour nga mën a comprendre euh, pourquoi ci biir société sénégalaise bi ñii jàppe ñenn ñi ay jaam il faut ñu dellu ba ci gannaaw colonisation bi fi amoon. xam nga bi fi portugais yi nekkee jaar fii jaar ci Gorée dem ak lu jiitu ñuy jàpp jaam yi nit ñu ñuul nii di leen yóbbu ci Amérique ñu duppee ko traite négrière ndax bul fàtte bul fàtte ne ci histoire am na jamono boo xam ne bi américains yi ak européens yi dañ doon jàpp jaam ñëw Afrique maanaam jàpp xeetu nit ku ñuul rek tënk jatan ko yóbbu ko Europe jaay ko muy bay ci tool yi ñu def ko jaam gis nga tubaab yi bi ñu ñëwee di waxaale nit ñu ñuul ñi di xool ñi ëpp doole ngir jënd leen li may wax nag histoire la bala maa dikk ci seen histoire bu yees bii nit ku ñuul mbokkam ne mbokkam mooy jàpp nit ku ñuul jaay ko tubaab bi wala nga ñëw reju ko ñëw ci tubaab bi waxaaleeg moom moo jox la xaalis nga dem fekk famille boo xam ne bi amuñu doole nga tënk ñëpp jàpp xale yu ndaw yàlla jigéen ña dóor ko ci bato yi portugais yi yóbbu ko wala américains yóbbu ko yóbbu leen ñu tudde leen ñu tudde ko traite négrière maanaam tubaab bi bi ñëwee ci Afrique di jënd jënd ci ñu ñuul ñu yóbbu waxaale ma dañoo fay ay nit corrompre leen xam nga kooku ak ñàkk fayda la léegi nag bi corruption boobu la amee ba ñuy nit ñu ñuul ñi ñàkk fayda bay jaay seen bopp ñi ci ëpp doole di ko jaay tubaab bi bi tubaab bi demee ba xam ne ñii kat ñu ngi jaayante ci seen biir mu am ñu mu ci woo jox leen ay jumtukaay jox leen ay matériel jox leen warga jox leen sukkar jox leen ay dëkkuwaay ne leen yéen kat comme yéen a ngi nuy dimbali ci jaayum xeet te seenu xeetu bopp la fexe leen ba am fi tuuti pouvoir suñ ñëwee ñu collaborer ak yéen ñooñu dañ leen ci saa si dañ leen a jàngal tubaab ñeneen ñi bu leen jàngalul tubaab itam ñu jox leen ay moyens ak ay technologie ma pas technologie waaye stratégie yoo xam ne daa ñu mën a fexe ba nit ñi nga xam ne amuñu loxo mën a yegg ca tubaab ba ku leen dégg daan yii baay moodu kët bàyyi mataar kët bàyyi njaga kët xaritu tubaab bi la kët xaaral ma dem ca bàyyi jaga ne ko nangam ndax xam naa ni man boo bëgg a ci nangam kët yii daal di xaw a mel na looy am looy ragal ci bàyyi Ndiaga wala bàyyi Matar parce que comme ñoom jege nañ tubaab bi ndax ñooy dimbali tubaab bi ci njàppum jàmm mi Baye Ndiaga ak Baye Matar nag daal ne ah ñii daal nañ leen faf noonu rek fa nañ leen faf noot foofa la yëf yi déparé am ñu ragal ñenn ñi am ñu yaakaar ñenn ñi ñooñu nag ñoo wëlbati ku nekk ay ceddo pour nga xam ne cedd bi nekkee ay ceddo nag ceddo yi seen première opération financière mooy jaay suuf ñu ne la ceddo sàngam mu ne la kajoor ba nangam suuf si maa moom jëlal ew eh ndaw sàmba suuf suuf fas yàlla si nga ni maa ko moom maanaam gën a muus kon ak intelligence parce que tubaab bi tamit bi mu ñëwee pour urbaniser wu dafa wut ay nit ñu ñuul ne leen dëkk sàngam kajoor mu ne woo kajoor amul bawol amul njàmbur amul siin amul ah bon c'est le c'est le territoire léegi nag ña fàqoon daw jege ji tubaab bi ñoom ñoo indi xeetu suuf yooyu le ban indi xeetu suuf yooyu nag ñu tàmbali di ko jaay léegi ñu ñëw ne la fii doo fi bay fii nangam ak nangam soo nee piip ñu boole la tubaab bi nit ñi ragal leen mais amul benn dalil islam moom waxaale wu ma ko ci histoire Sénégal moo tax constitution constitution Sénégal bi bi ñu koy soppi premier point bi bi ñu nee un un peuple muy benn askan un but loolu sax lu jafee firi la ñu naan bokk benn benn benn hëdëf maanaam ba nopp bekk benn foi gëm yàlla ndax man ngaa gëm yàlla am na ñu gëm yàlla mais xëy na ñoom dañu ay jullit ndax gëm nañ xëy na yàlla kenn la ndax mooy ahlul kitaab ak yu demee noonu un peuple un but ak une foi loolu la njëkk a def ci ci ci ci ci ci constitution bi dal dina nag ñëpp a yem moo tax ci deuxième guerre mondiale en 1945 ba affaire bi tuddee société des nations ca la ñu waxee nag la léegi ci 1887 xaw ma 1847 je crois yu demee 1887 fàtte naa ko la ñu waxoon ne léegi am na benn charte des nations unies boo xam ne léegi ñëpp a yem ci kaw suuf waaw léegi nag. te la ñu tàmbalee nag dagg mbuumuk jaam gi ba léegi nag Sénégal am na ñu ko fi dese waaye ñu ko fenn. kon bu ñu continuer waxtaan wi da ngay jàng ne mbir mi mbiru nit la du mbiru bàyyi ma mbiru nit la nit moo toog réfléchir réfléchir dafa am benn benn canadien boo xam ne bii euh, pour wax la affaire yi ni mu doyee waar benn canadien boo xam ne bii dafa doon jàngale astronomie maanaam euh, euh, ilmu nujum wa ilmul falak maanaam bidiw yii ak yu demee noonu li nga xam ne yéegoon na ci asamaan si gis yu baree bari question boo ko mas a laaj ci àddina daf koy tontu dinaa indi tur wi léegi yàggatul ci xëy na ci sama deuxième audio pour bañ a jaxase gis nga canadien boobu dañ ko mas a laaj ne ko euh, ban laaj ban laaj lañ la mas a laaj nga am ci problème ba mënoo ko tontu mu ne premièrement mooy damaa jàng asamaan si ni ko yàlla binde ak biddiw yi ak euh, mars ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam astre yi nekk ci kaw kaw asamaan si xunt yi ci biir nee na ma gis ne lépp dafa tegu ci yoon lépp dafa nekk ci calcul dafa tegu ci ay ay misaan yu wér yu nu natt teg ko nee na mu ñëw ci règne végétal maanaam règne végétal mooy garab yi ak ñax yeeg yépp ma jàng ko gis ne na mu doon évoluer dara changé wu ci lépp dafa tegu ci yoon nee na ma jàng règne animal maanaam jur gi xar xar yi bëy yi gaynde yi till yi bukki yi nee na ma gis ne foofu itam lañ nekkoon ña nga ca évolution bi nga xam ne moo ca war a nekk ña ngi koy def nee na ma xam ne lii moom mi ngi topp ordre normal am nee na ma jàng nit ñi yàlla jox leen xel jox leen xalaat ba noppi ñuy reyante ci seen biir ba noppi di yàq nee na loolu nee na question boobu la mënagul a tontu. ñu ne ko ban moo ci jiitu mu ne man nan la nit bëgg a nit ci kaw kaw suuf te ngeen bokk même manière bu leen yàlla bindee. alors canadien boobu mu ngi tudd Hubert Hubert rive Hubert rive moomu moo waxoon ne le comportement de l'homme sur terre nag taxawaayu nit ci kaw suuf la Hubert wax ne bi mu seetee ne àddina bi lépp la ko yàlla binde woon changé wul te mi ngi topp ordre normal bi nekk ci ay calcul ndax xam nga yàlla lépp da ko def ci ay ak yamoo aku mandute aku calcul teg ko ci ay poids yu leer naññ même asamaan si ni ko yàlla bindee bidiw yi ni ko yàlla bindee mais nee na nit la yàlla te yooyu amuñu xel yooyu ay jamaadaat lañ yoo xam ne xëy na amuñu xel mais nit nag yàlla jox ko xel ba noppi nag mu wëlbati carte gi mu wëlbatiwaat carte gi maanaam yàq lépp moo la xanaa moom li yàlla di wax naan saharal fasaad fil barri wal bahri waaw bi maa bi maa kasabat ay diinaas xëy na peut-être loolu la loolu laa ci mën a jàng man léegi nag moo tax gis nga boo demee ci société arabe yi abu Aboubacar Diallo waxuma l'islam moom yàggul l'islam yàggul bu fekkente ni dañu xool évolution de l'homme wala ñuy xool ba nga xamee ne homo sapiens am na te booba doomu aadama nekkagul sur terre gis nga ci boo demee ci arabie classique arabie classique seen culture du woon culture du woon culture xam-xamu bind au début au début seen culture moo doon culture xeetu fayonte maanaam fayonte ak commerce ak yu demee noonu parce que arab yàgg nañ lu bare yàgg yàgg yàgg ci àll bi te te euh, lu dul domination maanaam être dominé wala fayonte wala jàpp naa diw xeex ak moom moo njëkk ci seen bopp yi moo njëkk ci seen bopp yi ginnaaw gi nag bi nga xamee parce que bi nga xamee ne nag àddina bi mi ngi dox mi ngi dox ci arabie classique ba l'islam ñëw première difficulté bi bi bi prophète abraham waxaguma waxaguma prophète yonent bi sallallahu alayhi wa sallam prophétie abraham nga xam ni hébreu la moom du du du arabe première difficulté bi nga xam ne def na ko bi mu nekkee dans le Moyen-Orient parce que abraham jaar na Makka euh, ta def na fa ay ay ay ay ab diir et cetera et cetera kaaba gi dëkkoon na ci côté boobule mais première difficulté bi njëkk am foofule parce que arab yi arab yi arab yi avant ñu nekk foofule surtout à la Médine juifs yi ñoo fa jiitu woon loolu ñu bàyyi ko xel mais bi jaxasoo gi tàmbalee am problème problème majeur bi Ibrahima njëkk am mooy mu nan lay def ba arab ñii muy waxal ñu xam ne benn yàlla rek a am mais dañu dañ ko daal di ne ko non seulement dañoo lànk mais dañ ko doon xamal ne ko yow mënoo fee ñëw barki dem boo njaay bëgg noo gën ba te ba te ñun sunu ngëneel gi nekk ci ñun gannaaw sunu yàlla yi ñoo fi gën donc kon problème mu ngëneel mi ngi tàmbali dugg problème mu ngëneel moo moo tax problème bi Ibrahima am li alxuraan li ba mu jaareeg nangam bàyyam na ko nii mu fab yat ya nangam ak nangam euh, toj kii loolu am na mais loolu après mais bien avant Ibrahima amoon na problème intégration maanaam Ibrahima amoon na problème intégration maanaam nit ñi xeeboon nañ ko au début li may wax nag. du loo xam ne dañ koy gis nii ci ay alxuraan ak yu demee man je parle de l'histoire classique waaw euh, problème intégration boobu moom la amoon moo tax lim njëkk a def moom mooy xulóog ay bokkam Ibrahima xuloo naag baayam mais lu jiit alxuraan di ko nettali mais keneen nit ñoo xam ni famille bi mu nekkoon itam ñoom dañoo nekkoon ay noble yoo xam ni bëgguñu woon gis leneen lu dul loolu bi bi yonent bi ñëwee lam ca soppi lam ca soppi lam ca soppi wala mu jéem ko caa mën a soppi te diggante yonent bi Ibrahima sore na lool mais ba mu ñëwee lam ca soppi moom mooy fexe ba araab yi ñu bàyyi seen yi nga xam ne dañ caa nekkoon démb te amul njariñ mais yan nekkoon démb te amul njariñ mooy bokkoon na ci problème mu man nii laa toll ñoom sax duñu wax ci dañuy maa la ëpp xaalis moo tax moo tax yonent bi amoon problème tuuti ak Xadija ak yu demee noonu alors maa bokk fii man maay nangam ak i nangam ñu ne alxuraan bi mu ñëwee dafa jubbantiwaat di joyanti loolu nag dafa wuute ak tuuti histoire perse yi les perses mooy pratiquement ñi nga xam ne dañoo nekk ay Iran ñu mel ne Salman Faris ak ñu mel ne euh, euh, al imam Ghazali yi ñoo ñëpp ay perse lañ perse yooyu nag ñoom seen perception boo gisee ñu gën a bari xam-xam parce que perse yi il faut loolu il faut ñu reconnaître ko ñu ëpp xam-xam xaañtu ci arab yi tolloon duñ sax seen moroom alors que pers les persans dañu tàmbali rek ba ni ñu demee ba grec ak yu demee noonu dañoo tàmbali rek daan na léegi nañu yemale société bi nañu yemale société bi ci xam-xam nañu yemale société bi ci lu waay am jël mais day fekk nga ñàkk ko bu kenn jël alalu kenn bu fayonte am kon léegi déjà différence mi ngi tàmbali am différence boobu nag almoravide yi nga xamee ne ñoom ba histoire demaatee ban duggaat fii jaar au nord ba dugg fii ci biir Sénégal naar yi duggaale fi nag la ñu jàpp lañ seen maam ya nàmpoon démb ñu ñëw gën ko introduire fii ci biir Sénégal boole kook la fi colon yi bàyyi woon ak tam ceddo yi nga xam ne ñoo demoon euh, jege ci colon bi euh, boo gisee euh, Serigne Touba ci bindam yi muy wax da ngeen moytandiku nitu nitu nitu politique yeeg yii nii nii xam nga wéyloon xam lan ci ñi nga xam ne dañuy jege nasaraan beeg yi demee noonu <laughs> bon daa mel ne Serigne Touba yàlla da ko xamaloon na ko li mu fekkawul daa mel ne yàlla da ko xamaloon na ko gars yi li ngay wax ni ña nga ci waaw alors ñu ñu continuer ba léegi ci ci waxtaan wi pour ñëw rek ci wàllu maanaam euh, taarix taarix bi tax lii am ndax bu ñu tëbee rek daat ne waaw esclavage jàppum njaam Afrique nangam mais dafa am histoire moo tax mu andi léegi colon yi andi ña doon jaay jàpp njaam ak tubaab yi jaaraat ci américains yi wax traite négrière ban leen di jaay ñi leen ca jàppale parce que ci Afrique Afrique ñun nit ñu ñuul ñi gi ci defe naa ni le 2 mars 1833 la fi britannique yi su ma nee britannique nag mooy waa Angleterre lañu fi tab bi doon def yëf yëf yu demee noonu le maanaam jàppum jaam euh, ba ca loola jógee nag am na tubaab yu mu si bàyyi ñoo xam ne daf leen a samp ba mu leen sampee britannique yi dem français yi ñëw ñu def politique ci biir Sénégal boo xam ne bii ñi ñu fab dugal leen ci l'école française bi am na luñ leen fàggul pour ëllëg ñu mën a dominer ñu ci des ceddo yi ban xamee loolu lañu ñu ne ñu itam comme am nañ tuuti doole nit ñaa ngi leen di jox ay koppar di bay di leen jox ñu def troc troc mooy euh, nga am gerte jox ma ko man ma jox la dugub wala nga jox ma soow man ma jox la ñebbe ban ca demee ba xam ne loolu ci baykat yi rek la yem ak baadoole yi ñu dem nangu loolu aakimoo ko léegi par force parce que puissance bi leen tubaab bi joxoon moo tax ca la ñu jógee yu baree baree bare xew ba ci gis nga gis nga gis nga mille euh, mille neuf cent trente-trois gi rek yàggul dara al bu buura Alburi Njaay euh, buura Alburi mi ko jur euh, ci mm, ci yang-yang li nga xam ne def na ko fa te foofa dañ fa doon yóbbu ay jaam di leen def loo xam ne mari daytaal yi après gannaaw gi la ñëw changé yu mel noonu li parce que effectivement à part ñaanu xërëm yu ñuul yi ñu doon def li doon gën a dëgëral seen nekkin mooy mu am ñu ñu dominer di leen yónni ñu leen demal di leen waxal fu mënta yegg ñu yeggal leen fa looloot fokk nu bàyyi ko xel. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Maodo mais est-ce que nekkut avant bulletin di ñëw di ñëw Sénégal commencé woon maanaam njaayam jaam seen biir. ak di ëpp la doole parce que ki nga xam ne nee nañ maanaam moo damm yotu njaam yi waa ko libéré fi libéré Kajoor ak Bawol muy Amadou Gora Sabel mille cinq cent quinze la ko la def loolu te di njëkk loolu dañ daan yóbbu galak yang-yang googu Kajoor di jógee di yóbbu suuf ñii di yóbbu xorom ñii di yóbbu nangam ak nangam ci force te boobu jamono boobu lépp coup d'état boobu léegi njëkk nekk dameeru Kajoor kon kay ak ngallu maanaam ak njaam ak ëpp doole nit dëgg-dëgg moom moom jàpp naa ne Sénégalais yi ak africains yi def nañ ko ay ati at ay téeméer at tubaab bi doog fee ñëw yaakaar naa itam boo xoolee yang-yang nekkut ne loolu ñu daan def di indi force nit ñi indi ñu indi galak foofu nekkut ne dañ ko royee ci yi waaye ñoom ñoo ci njëkk sax yi parce que Amadou Ngoone Sall su fekkente ne mille cinq cent quinze la def la bañoon loolu ba tax mu ray ko ka newoon euh, jolof ba créé royaume boppam muy dameel ci Kajoor kon loolu jiitu na lool lool mille huit cent yi nga wax léegi kon day mel ne suñu bopp yàgg nañoo yàgg nañoo kara pratiquer njaayum jaam ak yóbbu galagat ak ndax suñu rek li boo waaye bukk galag gi xamal ci lislaam toog fa nga toog rek te waalo ne fii moom suuf si da dëgër yéen yéen Kajoor Kajoor suuf su nooy gënam dinañu am suuf dama ko yot waxtaan bi foofu la yem ñii di indi forom ñii di indi nangam ak i nangam te lii moom tax dëgg yàlla moom bu ko nee date bi nga xam tubaab yi ñëw européen ñëw ñëw Afrique moom li jiitu na ko lool lool lool. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh euh, Maodo Faye maa ngi lay nuyu di la ziara doon déglu sa audio bii mu am solo lool xanaa ñu bëgg ci indi rek suñ suñu njàngat. waaw xam nga nee nga société Joola société égalitaire la maanaam ñëpp fa tolloo waaye société yii yu demee ne wolof wala yooyu loolu nga tudd na dafa am ay géwal ay tëgg ay ñeeño ay nangam ak nangam mais ñooñu ñooñu ñoo yemoon dafa tasanteeg société bi dafa am kenn ku nekk loo taxawe gis nga géwél yooyu ngay wax ñoom ñoo doon raconter histoire bi ñoom ñoo yoroon taarix bi ñoom it ñoo doon journaliste yi ñoom it ñoo doon ñi nga xamante ni si bu guerre taxawee ñoom ñoo daan maanaam ñi nga xam ne ñoo indi Hamas ñoo ñoo daan encouragé di woy di la tagg ndax xeex dafa metti fokk ñu wax la loo xamee ne dootul jaadoote ci sa deret sax ngay dellu gannaaw kon ñoom dafa am rôle bu ñu doon joué ci biir moo tax kenn daawu leen rey kenn daawu leen rey dañ daan wax sax naan euh, géwél bu reppee euh, cib xeex lum jiin xeeb ko loolu moo indi woon loolu boo demee tëgg yi tëgg yi ñoo yoroon lépp loo xamante ni fii moo aju ci ngànnaay yi ñuy war a defar ak bool yi ñuy jëfandikoo ci kër yi ak nangam maanaam li ma bëgg a wax mooy ñooyu ay métier ay corps de métier lañu woon waaw kenn ku nekk boo demee ci wuude yi ñoo yoroon mbirum dermi moo yoroon nag loolu du ne société bi dañoo gënante woon déedéet kanta li nga wax ne inna akramakum indallahi atqaakum nu yàlla di waxee loolu pare euh, ñëw di reconnaître njaam ak njaam pare la wax nañ ko léegi ci suñ bële alxuraan dafa ñëw diina dafa ñëw fekk ko fi mais bu fekkee ne moom buñ xeexee buñ ko jàppalee ay kii dañ leen di yóbbu ah, moom bu jàppee ay nit nu leen def ray leen wala mu def leen ay prisonniers de guerre prisonniers de guerre nag moom lañ doon waaye boo yoree ay prisonniers de. <laughs> ok Moustapha maa ngi lay ree sax waaw xam nga 1515 Amari Ngoone Sobel d'accord loolu li nga wax dëgg la loolu mooy bi nga xamee ne euh, abolir na ko maanaam dindi ko entre nous maanaam ñunu neen ndax effectivement. loolu moo jiitu maanaam léegi njaam léegi mille huit cent trente yooyu ma wax la maanaam britannique bi ñu ñëwee loolu pour jënd yóbbu la woon ko tubaab bi jënd yóbbu bokkul ak jënd suñu bopp noonu wax dëgg mille cinq cent quinze googu Amari Ngoone Sobel dàq na fi loolu ci suñu bu dee loolu la dal bi yëppee ñun ñoo ko njëkk def fuuf ah traite négrière bi ma wax léegi rek bi ñuy gars yi jaar gore boobu boobu jiitu li may wax nii mais bi nga xam ne britannique yi ñëw nañ ñoom 1833 bi ñu ñëwee lan def mooy fab xaalis jënd yóbbu jënd jox diw mu jox diw nga jaarale Amérique yóbbu loolu foofu laay waxee waaye li nga wax li dëgg la effectivement loolu moo jiitu tu as parfaitement raison loolu moom du ma ci werante dara mais jënd yóbbu gi ak jënd suñu bopp noonu bokkunu bii dafa saxoon ci noonu donc suñu péncum bopp waaye ba nga xamee ne demee na nee nag eh, boobu moom noot bi la woon waaye bi tubaab bi ñëwee foofu la tàmbali woon te amoo doolay taxawal ak prison bu mag di leen garder di leen jox ñuy lekk li nga man mooy séddale leen ñi nga xam ne ñoo doon ger rek ba ay directives pour que ñu jëfanteeg ñoom ci anam yi gën a mag te lañ wax jigéen ñi ne leen euh, yéen ñi nga xam ne yéen lañ leen ko jox yéen leen moom bu leen neex ngeen jabaroo leen bu nangam nangam loolu liñ jublu rek mooy lépp suuf nga rey leen parce que yaa leen moom loolu la woon te teg na ay yoon yu bari ngeen jeexal ko loolu buñ ko fàtte kon moo tax la nga xamee ne moom la lislaam indi mooy principe yi bu àddina bi yëpp nekkoon sama loxo nii lay doxale waaye am na lu ma fekk waaye nag ngir jeexal li ma fi fekk mooy dana ubbi bunt yëpp yoo xamante ni ci gaa jaam dana ci gore waaw léegi nag est-ce que jullit ñi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam politique boobu nga xamee ne moom lislaam tegoon appliqué nañ ko je ndax jaam yi dañu mujjoon ba ba bari waaye loolu nag ça n'a rien à voir avec société égalitaire et non égalitaire loolu du ne dañ mënta ñàkk société boo gis rek foo mu am ay ay il mu am rek ay tabaqaat ijtimaaya waaye tabaqaat ijtimaaya yooyu liggéey koy waral ñii ñoo féetewoo lii ñii ñoo féetewoo lii ñii ñoo féetewoo lii te ki ngay li ngay gis noonu li ngay gis euh, tabaqaat yooyu géwël yi kenn doon leen fiyaat seen bopp te yow bu bëggoon géwël dem na dama cay bëgg ba yaakaar da nga ñëw rek ñu jox leen ko de danañ hésité lu bëree bëree bëri bëri naka noonu dëgg yi naka noonu nangam nangam kon loolu dafa am lu ko indi rek ba léegi nag ñu ci société waaw société bu am na lu noonu société bi nga wax noonu xawma leen waaye nag am na lu mel noonu loo xamante ne fii il am ku nekk am tâche boo taxawee loolu rek la salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, Cheikh maa ngi lay sant di la gërëm mo effectivement d'accord naa ci li nga wax ah effectivement que ni classification bi tëgg yi ñoo yore woon affaire bool yeeg yooyu géwél yi di tàggaate c'est très bien bien pratiquement loolu loolu ànd nañ ci xam xamoon nañ ne loolu amoon na ci société bi mais bi loolu amee lam jur mooy ñàkk indi société égalitaire léegi dem nañ ba nga xamee ne kuy jëfandikoo weñ ñu ne ab tëgg nga ku def leen ñu ne géwal nga loolu moo au début tu as raison au début d' accord ñëpp a ca yemoon waaye léegi gis nga ni mu tëddee euh, xam nga ba xam déglu nga sama audio yëpp ak euh, waaw wala déet mais pratiquement ci foofu inna akramakum indallahi atqaakum euh, damaa wax ne bu yàlla waxee ne ki gën ci yéen mooy ki ni nga xam ni nga jàngi aaya bi mooy ki ci gën a ragal yàlla ba noppi nit laa wax nit ñëwaat ne kii moo gën kii waxuma ci njàmbi de ba noppi nit ñëw laa wax comme yàlla wax na leen ba pare mais c'est vrai que histoire islam euh, goreel ci njaam yàpp ci guerre bi loolu wax naa ko moo tax ma ne laaj ndax est déglu nga sama audio yëpp ndax mel na lu ci bëree bëri maag yow ñoo ko xaw ñoo ko ñoo ko nuróole de maa ngi sant bu baax di waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw Cheikh lu waaw li nga wax euh, comprendre naa bu baax a baax a baax euh, euh, commentaire bi nga def ci société égalitaire bi ak kenn ku nekk fi nga war a taxawee c'est vrai que am na changement yu ci am après que tamit loolu moom bi amee tam teewul nit ñi moom fexe nañ ba soppi lépp alors société Joola kenn ku nekk bu amee looy taxawee tam du ci taxawaayu du ci taxawaayu kii lii la wala kële la la comme ñun ni ñu classifié ñoom danañ dem ci bois sacré bi ñu def seen ay aada ak seen ay cosaan def seen ay ñaan après dem waaye du tax kenn nag kii comme ñun li ñuy xoolee diw daan ne kay ñeeño la amul ci amul ci société joola maanaam wala nga ne kay day simplement parce que doon liggéey wàllu wàllu weñ rek ñu ne tëgg la comme ni ko yonent yàlla Daawuda doon defee ñu ne ñu ne kon kee tëgg la ñoom loolu duñ ko def parce que ñoom seen société même sax dafa bokk ci seen aada gis nga ñu am ñu bari sax ci joolaay dañ koy daw gis bu nekkee dans les villages day gis koo xam ne ki bu ko ci yàlla wërsëgalee mu nekk fu mel ne Dakar wala Europe rare très rare mem ngay gis ñoom ñu tabax ay tabax yu yëkkatu ci seen kaw tim ñenn ñi dafa immeuble ak yooyu dañ koy ragal sax ndax am na ci ñoo xam ñaari bu ñu ko defee sax maar détail yi leneen mën na leen caa fekk souvent dañuy égalité ci société bi nijaay ji sax ñaare bu sa papa gaañoo lu bare bari ci alal ji day dikk ne man maay nijaay ji nag yi wala yi en fait société tout de la même manière d'agir dans la société foofu la foo loolu loolu mooy société société Joola bon yeneen sociétés yi nag comme ni nga ko xamee ma xamee ko comme ñun wolof yi pël yi kenn ko rek am nga noo tërale mais ñoom ci seen sant yi ñuy sant sax boo ko xoolee seen sant yi sant sant Joola yi seet sa xel dem ci yu bëree bari doo ci gis sax benn boo xam ne bi dafay xam am connotation bi xaw a niroo ko naan euh, lii la wala laa la donc c'est une effectivement égalitaire. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki waxul jaal xaqu zaaxal baati innal baatila kaana ñu ngi nuyu wax leen ziar di nuyu mboolem ñu nekk ci groupe bi di jégalu géej gi nag tënk-tënk jamono ji rek waaye ñu xel ak suñu xol yëpp lu jub ci yéen waa waxul yaa xam bu nuyoo suñu Babacar jàlloo mu tegal ñu suñu nuyoo suñu ziar ci loxo waa groupe bi ñëpp rek danañ ci jot <laughs> eh, xam naa di. wax ni incha allah ñi ngi bàyyi xel eh, waxtaan yi bi am kam kàttan eh, amaat yéene tamit àndaat ak mbokk yëpp rek ci eh, luy doxal groupe bi di ziar ñëpp rek xam naa jamono jiit nga xam ne ñu ngi génn gàmmu dégg fi discours yi am am solo Serigne Babacar Sy Mansour xafisahullah euh, waraahu discours am bu am solo boobu ak bu ànd ak fermeté boobu ci wàllu valeur ay jikko te mu duut baaraam ci wàllu homosexualité wàllu góor jigéen daal euh, ak lépp lu ci aju euh, xam naa nag jamonoon teegit Euh, communauté internationale euh, wala Nations Unies di def kem te lay kàttanam ngir euh, loolu tas bëgg-bëggu seen yàlla jooju nga xamante ni mooy iblis laanatullahi alayhi ay taalibeem ñoom ñoo taxawaloon kuréel googu moo tax gis nga kuréel googu bu ñu taxawee di woote pour ñu légaliser ay mariage gay bu mu kenn waaw ndax ñoom daanaka mboolem luy dox ci àdduna bi euh, organisation yi ngay dégg yëpp mu ñu bànqaasoo ci ñoom euh, ONG yi ngay dégg association yi ngay dégg yu ci bëree bëri danañ fexe ba euh, def leen ñoom ñu nekk ci seen xabda seen ngëbug loxo ñu leen manipuler pour ay fee satanique maanaam fexe ba bëgg-bëggu iblis boobu tax moo tax gis nga association yi ngay dégg fii Sénégal ak euh, ONG yi ah euh, nga dégg leen ñuy wax ci anam goo xamante ni anam gu naa fekk la ah euh, loo xamante ni buñ buñ ca waxut mën naa dem ba bëgg-bëgg iblis boobu tas ci réew mi te bu waa moo suñ bidaay nihaaya waa kon mooy doon suñ début de la fin mooy bëgg-bëggu iblis boobu nga xamante ni euh, ñoom dañu ko waxoon de ñoom nee woon nañu te loolu dañ ko bind ci al injiiru seytaan yi bi nga xamante ni Antoine Levy ak Crowley euh, ñoom ñoo ko bind wax ni euh, te ñun danaan jaamu iblis ba si yokk ñoo wax ni iblis romb na yàlla jun war a jaam waaye iblis day incarné ay valeur ay xiyam xiyam yooyu nag ñoom suñ ko waxee bu kenn foog ni ñun xiyam yi yi nga xamante ni moom la euh, ñu yonente di jàngal jëlee ko ci yàlla dëgg ji muy allah subhanahu wa taala bi bind àdduna bi bind iblis waaw bind euh, mboolem euh, lu ne ci kaw nu bi valeurs yooyu nag mooy valeurs yi nga xamante ni moom la moom lañu tuddee ay valeurs ñoom te iblis euh, bëgg ko doxalal te mooy lan ñoom dañoo wax ni ñun war a jaamoo yàlla seen yàlla jooju mooy iblis mooy li diine yi indi di ko digle ñoom ñu di ko tere li diine yi di tere ñu di ko digle waaw bu diine ne na góor ak góor di fay ñoom ñu ne na jigéen ak jigéen di fay na góor ak góor di fay léegi sax gis nga dañuy wax affaire yu LBCT maanaam affaire yu mariage gay yi ñuy waxaat ak euh, mais léegi xool affaire transsexualité gis ñoo xamante ni dañuy am sexe bu góor dindi ko def bu jigéen am ñoom dañuy am sexe bu jigéen dindi ko def bu góor am ñoom dañuy def ay opération euh, dindi seen ween yi moom set wicc euh, modifier seen kanam yi doonoon ay daanaka bu la rombee doo xam ne ñu ay jigéen la ñu ay góor la woon yooyu léegi foofu lan toll waaw léegi fee ki xaj xam na ci yow ji boo demee eh, eh, ngay fay pour fee xaj wala fee ak mbaam wala golo wala rab boo bëgg c'est-à-dire ñoom fi ñu toll ci ak yàqute moo tax gis nga bu ñuy wax euh, modernité euh, toujours ñun ñun dañuy dañuy dañuy yëg ak duuli ah, di wane ni ñun moderne wu mais modernité du du du dem ba góor a góor di fay modernité du dem ba jigéen ak jigéen di fay modernité du dem ba góor di fee xaj wala fee ak mbaam mais loolu ak ak ak ak waaye loolu yi fi bàyyi ma la moom gis nga xam fikri bi fexe nan ba def ci suñu xel yi ni ñun ah civilisé wul même boo xoolee sax tubaab yi bu ci yeb gi ñuy yeb ñëw gi ñu ñëwoon jàpp suñu maam yi rey ñu not ñu di ko tudde civilisation istimaar bu mel ni nga ñoom dañ koy jëfandikoo ci sens positif nga xam ne dañuy wax ne ñoom dañu ñëwoon pour dundal euh, dañoo fekkoon du ñu dara ñu civilisé ñu dundal ñu tabaxal ñu dëkk yi naan te loolu amul istixmaar la ay mbaam lañ ñu defoon léegi nag ñoom ci dem gi nga xamante ni xam nga war a na wax solo saafi yi mooy la mooy li tubaab yi nekk rek dem ba nga xamante ni ay valeur yi valeur selon Iblis moom la ne doxal moom la Antoine euh, Livni ak Karaw li bindoon ci seen téere yooyu mooy ko mboolem ni diine yi digle di seen bu bari bii ngeen di dégg mais fii yéen mbo boo demee ci réew yu mag yi narcotrafiquant yi gën a mag ah ci état lan c'est-à-dire gis nga lobby maçonnique yi lobby satanique yi danaan fexe ba crime yi ngay dégg yëpp loolu ku ci amay documentaire xam na ni ñuy wax waaw danañ fexe ba crime yi ngay dégg ñoo koy organisé njaayam dorog mi ñoo koy organisé ba pare ñoo koy xeex fi nag seen fexe ba boo bokkee ci ñoom bokk ci lobi satané gi même boo rayee nit bu ñi lay jàpp fii ci lobi satané gi la ni bokk fii fii lay àtte ci lobi satané gi la ni bokk bu ko fee doo inquiété wu danañ fexe ba ci anam bu jabolique ñu ñu ñu ñu leen gis nga euh, yi ngay dégg ñu naan dañ ko fee xeex da da da nga dégg mu da nga gis mu yeex fee jub de puisque élite bi ñi ñi ñi xeex dorog ñoo jaay dorog waaw te ñoom dañuy amee justice dañuy amee police dañuy amee armée dañuy am yu ni àdduna bi loolu moo fi am waaw moom daal li xew ci àdduna bi kenn mënu la ko en tout cas mbirum góor jigéen mii nga xamante ni moom mi ngi am te muy bëgg bëggu iblis bi gën a mag tey bi waxoon na ni li nit di def ci kaw suuf lu ko ci gën a neex mooy góor guy feeg góor te mooy jigéen buy feeg jigéen bëgg-bëggam boobu nag ah nga xam ne moo gën a neex seen yàlla ji loolu danañ fexe nun mën a fexe pour mu tas dinañ ko ko waaw tayit gis nga euh, thème yu mel nii bu nangu ah. kenn ku ko banaliser toujours ah, kenn ku nekk sa kër tàmbalee ko sa kër <laughs> na nga xam danger bi nekk ci affaire euh, acte contre nature yi maanaam euh, xeel yu ni mel na nga ci conscientiser sax njaboot koñ bi nga dëkk na leen ci conscientiser ban xam ni lii waxuma sax diine nangu ko mais amul benn Euh, euh, civilisation wala ay valeur am yi ñoo xam ne am na ay valeur nangu ko du christianisme du judaïsme piir bi waxuma bii euh, nga xam ne moo jur franc-maçonnerie du du du du du kenn ku baax ko mën a nangu waaw que day tahdiid li ne wax ak insania que foo lobby yooyu foo leen gisee yii da ci ànd criminalité maam yooyu yii ñoo bokk ndey ak bàyyi lii la wax lobby maçonnique yi seen liggéey dëgg criminalité ah wàllu affaire narcotrafiquant wàllu homosexualité ah wàllu sexe ñu baal ma c'est-à-dire yooyu ñoom moom la ñu promouvoir muy bëgg-bëggu iblis rahmatullahi alayhi yooyu ñëw pour daani diine yi faagaagal diine yi faagaagal ay xiyam ay ay valeur yooyu moom moo leen tax a jóg moo tax tax nag bun tàyyiwul ñun bun tàyyi ndax adduna bi ñaari xisbu rek a fi nekk xisbullah xisbu cheytaan xisbullah humul muflixuun xisbu cheytaan humul xaasiruun loolu yàllaa ko wax buñ demee nii nag eh, xisbullah humul humul xaalibuun eh, ah humul ah, lu ñuy ragal man wax leen war a wax wax ko bil xikma wal mawisatil xasana conscientiser nit ñi fexe bu benn kenn du ñemee taxaw ah, Euh, di jéem a promouvoir góor jigéen ci anam gu naafiq bi nga xamante ni dégg ko ay ngay nekk Sénégal fii ko fi def ak ay texte ay loi yoo xamante ni dana leen wutal porte de sortie ak ëllëg ñu tabax nation boo xam ne dana nangu affaire góor jigéen waaye loolu moom yàlla bu mu fi am waaye nag ñu ñu war a jóg pour xeex ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñ Babacar Diallo maa ngi baax di la ziar ak bu am solo bi nga xamante ni. Euh, mbokk yu bari ñëw nañ ci muy affaire jaam wala sax lu gën a yaatu euh, ci société boo dem am na lu ñuy tuddee ay euh, catégorie sociale loolu nag noonu la amee woon fii ci suñu réew mi nga xam ni société bu Sénégal boo ko xool ci wàllu social Euh, wala sax ci wàllu politique ci wàllu diine ngay gis ni bu njëkk euh, dafa séddalikoo woon ci euh, wàllu ay catégorie yoo xam ne nag loolu du Sénégal dong foo dem ci àdduna bi moo xam Siin la wala Japon wala Inde wala foo man di dem ci réew yu bari population bi day séddale ci ay catégorie sociale damay tabaxaat ciment yi loolu nag tekkiwul nii euh, tabaxa bu nekk dafa war a xeeb morom bi comme ni nga ko daan gisee ci société yu njëkk yi euh, ndax loolu mën na indi gàllankoor ci doxalinu am réew euh, li ciy firnde Europe boo demee avant ñuy dugg ci seen renaissance bi dañoo amoon ñetti catégorie boo xamante ni benn bu nekk dafa amoon ay privé voilà catégorie yi bokku ñooy privilège même bu mujj bi sax nga xam ni amoon na lu ñuy tuddee euh, rijaalu diin mooy ni ci diine yi nga xamante ni ñoom ñoo doon euh, jox saabo bi pour peuple bi li ñu soxla ci wàllu diine euh, ànd ak ñi doon tuddee cavalier yi maanaam noble yi di nguuru nga xam ne ñoom booy xool ci ci wàllu politique ñoom ñoo nekkoon alhaya alxaakima maanaam ñoo nekkoon au pouvoir même su fekkee da ko xool ci catégorie ci wàllu économie ñoom ñoo nekkoon asiyaar ñoo nekkoon les riches boos yi ñoo nekkoon boos yi soo ko doon xool ci wàllu social yi ñoo nekkoon aristocrates yi maanaam ñoo nekkoon patron yi beneen catégorie bi amoon euh, pour war na ne la lii ñuy wax ci Sénégal yàgg na faneen ay catégorie euh, am beneen catégorie boo xam ci nii tamit kon rijaalu diini amoon na nubalaa yi mooy noobul yi nga am ñoo doonoon euh, soldaar yi ak ñi nga xam ni nag ñoo nekkoon almaxlubiina ala amrihim mooy mba mooy mooy jaam yi nga xam ni boo xoolee kon catégorie bu njëkk muy rijaalu diini ñoom ñoo daan du ñoo daan jox nit ñi leen soxla ci wàllu diine ci seen anam goo xam ne nag dañ ko doon def ngir gën a mën a noot seen peuple sëriñ soola muy sëriñ chrétien yooyu loolu mooy expliqué bu ne ba jëmmi jamono tubaab yi mujj bañ diine ba boo tuddee diine ñu saagoo euh, beneen catégorie bi nga xam ne ñoom ñaari catégorie yooyu ñoo àndoon not ñetteelu catégorie bi ah muy muy jaam yeeg baykat yi moo doonoon euh, noble yi nga xam ne ñoo nekkoon au pouvoir nga xam ne ñetteelu catégorie bi moo doon baykat yi ñoom ñoo daan dundal ñaari catégorie njëkk yi ñoom loolu doon seen liggéey ñee ñu yor wàllu diine yi ñu yor wàllu àdduna ji ñu ànd not ñetteelu catégorie bi lool nag amoon na fii ci suñu réew yi damay Sénégal boo ñëwee da ngay gis ni jaam ñi baykat yi euh, toujours yàgg nañoo gis ceddo yi ànd ak ay sëriñ di not population bi loolu nag problème la ba léegi nii néewul dañ na complètement mais jeexe bi dangay gis nii am na rijaalu diin yoo xamante nii dañoo ànd ak rijaalu dawla mooy nit euh, ci état yi ci loo xamante ni intérêt état bi nekku ci. loolu euh, yàgg na fi ndax société bu Sénégal laata Sénégal bi doon réew ak yu ni demee comme bi muy bi ñu nekk fii ci royaume yi fi nekkoon moment léegi comme ay Jolof ak Bawol ak euh, Casamance ak ay xeeti royaume yi fi nekkoon da gis ni. Euh, almujtama sénégal yi dafa séddale woon ci ay euh, li ñuy wax régime féodal maanaam ay nizaam iqsaa yi ah, nga xam ni tabaxa bu nekk amoon na lu ñu ko ràññee woon nga xam ni baykat yi ak sàmmkat yi ak ñi nga xamante ni ñoo yoroon euh, liggéeyu loxo yu ndaw yi ah ñooñu Euh, maanaam anam googu taxoon na population bi séddalikoo ci ay catégorie waaw maanaam ni réew mi doon doxe ci wàllu économie ci wàllu bay ah euh, ni mu doon doxe ci wàllu euh, diine ni mu doon doxe ci wàllu social moo defoon réew mi séddalikoo ci ay catégorie sociale yu wuute yoo xamante nii benn bi benn bi Euh, moo nekkoon li tuddee euh, tabaxaatul fokkaam mooy ñu nekkoon ci pouvoir bi ñu leen doon tuddee garmi hmm? la ah ak beneen catégorie boo xam ñoo nekkoon la axraar mooy gor yi ah wala tax mën nañu tuddee mbaadoo la fi na baatu mbaadoo la bu ñu ko waxee ñi doonoon ci pouvoir bi nekkoon nguur ñoo doon nguur ñoo tuddee garmi yi tabaxatul axraar ñoo leen tuddee mbaadoole yi ah mooy ñoom di daal ñoo xawoon bukk mbaadoole boo ko waxee fi ak ñoom di ni ay jaam la wala déet hmm? am beneen catégorie boobu di moo nekkoon ñetteelu catégorie bi kon amoon yi catégorie axraar mooy mbaadoole yi ak euh, ñoom yi néewu ci pouvoir rek waaye du dum jaam yi am na benn catégorie boobu moo nekkoon jaam yi waaw ñi xam ne ñoo yoon waaye sax dañ leen tuddee ba tey ñeeño hmm? kon amoon na garmi am mbaadoo la am ñeeño yooyu nag sa dëgg dëgg dëgg euh, boo xoolee wërta nekk euh, kenn ko nekk catégorie bi nga nekk wërta tax nga xeeb beneen catégorie bi waaw ndax yàlla ci suñ ci ci ci boppam moo bindee àdduna noonu yàlla nag moo bind àdduna bi ginnaaw boo xamee ne yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo bind àdduna bi ci ay euh, couleur yu wuute ay làmmiñ yu wuute ay euh, euh, ñu dëkk ci ay euh, climat yu wuute maanaam wuute googu yàlla ba nga koy wax lu taxoon mooy li taarafu ngir ngeen xamante teg nag benn mabda boo xamante ni moom rek ci la nit war a gëree nit mooy mabda u taqwa wala taqwa rek inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a ragal yàlla ci eh, ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla waaye du ki gën a gën ci ñun mooy ki sant nàngam du ki gën ci ñun mooy ki dëkk dëkk sàngam du ki gën ci ñun mooy ki amee couleur sàngam du ki gën ci ñun mooy ki wax làkk sàngam ki gën ci ñun du mooy ki amee poste sàngam déedéet ki gën mooy ki gën a ragal yàlla loolu nag dañu catégorie social yooyu nga xam ni ay la yéwén kenn mënu koo dindi waaye nag wër sa nekk source boo xamante ni dañ koy jël di ko xeebe ñeneen garab yi di xeeb ba doole mbaa doole di xeeb ñeeño yi ñu naan ñi ay jaam la nangam te gis nga jaam pour ñu ñëw. Euh, affaire jaam moom. léegi nii nii moom bu ne wax waxee affaire jaam moom jaam mu amatul moom. bu dee ci affaire entre islamiyee jaam bi islaam euh, doon wax loolu mu amatul léegi nag li fi nekk mooy euh, affaire jaam. am na ci lu olof yi di tuddee eh, ay jaam ci eh, ak mbokk yi loolu tekkiwut ni mooy jaam bi tax ñuy wax waaye nag boo demee fu mel ni Murtani nga xam ne ñooñu moom eh, am na fa ñoom ci ba léegi nii ñoom seen jëm bopp sax dañoo jàpp seen bopp ay jaam yoo xamante nii ay nit leen moom sañ leen a def loolu leen neex loolu boo demee am na ay Murtani te defe naa dëkk yi mbes ci àdduna bi bëriwul puisque Euh, Nations Unies ak communauté internationale bi dañuy tere li ñuy wax euh, wàllu njaayam jaam euh, waaye tamit ñu xam ni affaire jaam fii ci Sénégal ku ko doon moom yaa ko nangu ku ko doon yaa ko nangu waaye amul kenn ko mën a taxaw ni diw nii sama jaam la jaam bi tax ñuy wax nag mooy jaam boo xamante nii yaa ko moom sañ nga koo jaay sañ nga koo def def loolu la neex léegi yooyu sañ ca bañ jaam yooyu mu amatul moom amatul li fi am léegi nag mooy ñoo xamante ni moom dëgg la doon dafa léegi xeebante ak euh, ci wàllu ay kat yooyu ñoo war a xeex pour jële ko fii parce que fii ñëpp a yem waaw ñun ñëpp ay nit leen xëykëre bi ñu yàlla binde ñoo ko bokk fi ñu wuutee rek moo ci euh, ay axlaax ay jikkoo ci ay doxalin ci ay defin ci wàllu euh, mustawa aqli yi ak mustawa ilmi yi foofu la nit ñuy wutee waaye nag nit ñi ñoom waruñoo rek wute maanaam yow kii daa juddu tey la lan tey la euh, euh, dix-sept novembre kii juddu dix novembre kii juddu dix-sept novembre ci tey jii rek nga gëm ko ah loolu fu mu tegee yow maanaam euh, dañoo départ rek nga gën euh, diw gën diw ci ci ci course bi ah loolu loolu wala départ gun bokk départ gun da nga bëgg a raw loolu moom euh, yooyu yooyu léegi daanaka ay caaxaan la te gis nga yooyu suñ kilifa am ñu doon na ñëw pour jële fi yu yu mel noonu gis nga ko mel ni pour jële woon fii yu mel noonu daana fekkoon yi dañ koo xamoon ci cosaan ci wàllu ëw aw téere mu jël ko binduloo ko alquran fekk koo xamante ni euh, dañ koo xamoon dañ leen a xamoon ci jàng xam-xam mokkal alquran mu jël leen di leen awloo téere loolu xam nañ ko fi te loolu loolu pour xeexoon maanaam euh, dagg barrière yooyu nga xamante ni nit ñi dañ koo tegoon nit ñi ñooy def lii ñee ñooy def lële euh, jëloon na sax ab taam doon ko joxe koo xamante ni ñooñu ci cosaan ay ay ay ñeeñu leen tudde te euh, yu ci bëree bëri nit ñi ñoom ñooy dem ba di ko di ko def waaye li gën mooy ñu xam ni moom fi mu ne nii affaire u jaam weesu nanu ko jaam yooyu lislaam doon euh, wax nga xam ni euh, xam ne tey boo doon def kafaara da ca mën bokk na ca lan lay teg nga ko reedu jaam wala yeneen yi lay demee yooyu mu amatul fii daal li fi dégg ci affaire jaam ay affaire kii la rek aadaat cosaan ni rek diw sama jaam la maa ko joxe sagaat fa yooyu moom taxul ñu naan euh, affaire jaam beneen bi mooy bu dee ñi ñi nga xamante ne dañ leen di féete ñi jàpp leen ay jaam gën fii ci Sénégal moo ñaam di ni ay xeex dafay amoon xeex ya euh, xeex ya ñu jàpp leen euh, def leen ay jaam mais pourtant ñun duñu ay jaam ay góor la su ne comme mën mi man nag sama rakk rek mënoon nañoo dem ci ab xeex ñu jàpp sama rakk def sama rakk ab jaam wala jàpp ma def sama jaam mais ma jàpp ma rek bu dee ci suñu xeet yi amoon fii ci suñu nguur yi yaa ngi léegi euh, te nag naa benn war wax nee na xeex boo gis ña euh, ña ña daw ah ña la jàpp nee na jàpp ña xeex taxaw fas seen jom ba ban jàpp leen ñooñu xam naa ñu ngi jéggalu loolu la doon barkeelu rek suñu participation ci wàllum thème bu am solo bii euh, jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw al ustaas xat fàkk sëy ñu ngi lay nuyu di la siyaare lu bari lool waaw macha allah ci ndéggat yi nga xam ne indi nga ko ak loolu nga xam ne it wax nga woon euh, yàlla dafa bokk ci ay kéemtaan mu bind nit ñi ñu uutee comme li mu wax ne wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi waxtilaafu alsinatikum wa alwaanikum nee inna fi saalika la ayatin loola dafa bokk ci kéemtaan yi yàlla def uutee gi nga xam ne nit ñi ute nañ ko seen làmmiñ fukki nit dañuy ñëw taxaw fii kii di wax sinuwaa kii di wax olof kii di wax pël kii di wax tukulóor kii di wax séeréer kii di wax français yàlla nee na loola kéemtaan la bu ma def ak bind bi ma bind asamaan ak suuf comme ni nga xam ne indee nga ko yàlla nag bind bi mu bind nit ñi ñu uutee noona sàqalikoo noona war a dajewaat pour xamante comme ni ko sunu maam aadama defee woon ak sunu maam xawwa war a dajewaat pour xamante li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum moo tax bu ñuy wax kii jaam la kee lale la kii nangam la waaw te ñun ñëpp jugee ci kenn sunu maam aadama min nafsin waida ñu dem ba mu yàgg ñu keree nag ay jaam ay ay gor ay nangam ak te jógee ci kenn loolu moom doy na wax loolu moom yéeme na moom ni ko Serigne Fallou di waxee loolu moom xoromu na ana yàlla def jàmm insha allah alhamdulilah rabbil alamin salaatullahi wa salaamuhu ala habibihi wa habbihi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ya himmata seyqi ahduri lana bi hada almahdari wa tatufi bi nasratin taati lana bi safar mbokki waqul jaal xaqu ñu ngi leen di ziyaara beneen yoon di leen ndokkel di rafetlu bu baax thème bii nga xam ne mu ngi fiy daw di thème bu am solo daanaka dañoo ñëwoon sax ngir dugal silsila bi ci tombab juróomeel bi waaye ñi déglu audio Seydou Aboubacar bi mu wan ne am na tem bu fi nekkoon ñu aju ci kaw déglu ci yenn audio mu nekk audio yu am solo muy thème boo xam ne eh, damay faral di wax ne lu jar di waxtaanee la ci jamono bi ñu tollu ndax ni mu demee moo tax damay faral di def ëpp na ñeenti at wala juróom waxtu ma defee conférence ci Saalum fi ma koy tëjee rek mooy ci tomb boobu laa koy tëjee Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu defoon ci rôle bu am solo te muy royuwaay ci képp koo xam ne ab kilifa nga mooy bi muy wax Amr ibn al ne ko ma tasta'badtum an-nas wa qad waladatum ummahatuhum ahraara ba kañ ngeen di jël nit ñi di leen def ay jaam te ba leen seen waay di jur ñu nekk ay gor Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw na ci kaafiya mu wax wax ju am solo muy ayoon naas ee eh yéen nit ñi na ngeen xam ne yéen ñëpp yem aadama mooy seen baay na ngeen xam ne it inna aadam lam yelit habdan wala ammatan na ngeen xam ne aadama jurut ab jaam jurut ab jéebéer wa ma walada illa axraaran aadama ay doomam yépp ay gor la te ñun ñépp ci aadama lañ jóge ko suñ borom subhanahu wa taala wax ci alquran te loola lañ war a jël mu nekk référence bu njëkk képp kuy xam ne yaa ngi yëngatu ci ab àtte bu mu mënta doon nga dellu ci alquran suñ borom ne inna xalaqnaakum min nafsin waahida man yàlla maa leen bind ci benn bakkan wa xalaqa minha zawjaha bakkan booba ma bind ci ab peeram waaye nag wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa kon problème baa ngi amee bi nga xamee ne góor ñi bari nañ jigéen ñi bari nañ ñun buñ demee ba tey am ñenn ci góor ñu jàppee ñu nekk ay jaam ñenn ci jigéen ñu jàppee leen ñu nekk ay jéebéer kon am na lu ko waral li ko waral nag bokkoon na ci li nga xam ne malaaka yi doon nañ ko wax ak seen borom ndax da ngay def ci suuf koo xam ne dafay yàq suuf di tuur ay deret te tuur ab deret mu ngi jógee ci xeebante songante bëli xew-xew suñ boroom wax ci benn laaya ne inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum suuban wa qabaila boroom xam-xam yi ko firi yépp amut benn suub boo xam ne dañ leen tuddee ñu nekk ay jaam wala qabila boo xam ne ay jaam la ñuy nekk waaye fii ci Saalum tey ak li ko wër walla fii ci Sénégal wala ci yenn barab yi dañuy jàpp ne ak njaam dafay nekk xabila boo xam ne boo fay takk jabar sax boo demee ñu ne la ñooñu duñ say nawle ay ngàllo ngàllo lañ boo demee ci dëkk yi ñu ber leen ci ay barab eh, bu kenn ci ñoom bëggee jabar ñu ne ko duñ la may ndax ngàllo ngàllo nga mooy wane ne kon ñoom dañ ko jàpp mu nekk xabila mbokk yi ndax loolu di dox ci Sénégal méngoo na ak lislaam wala méngootu ak lislaam damay wax ne déedéet méngoowul ak lislaam su ma ko waxee ci Sénégal nag la ca valable valable na ci Mauritanie valable na ci Arabie Saoudite ci boppam valable na ba ci Amérique ndax li nga xam ne am na jamono bu yàgg la am ci jamono ay ñetti téeméeri at lu teg njëkk cinq cent miladi ya njëkk yonent bi juddu fekk na mu nekk loo xam ne lu am la ñu di jël ay jaam di ko jaay xëy na ci mille six cent soixante et un ba mille sept cent soixante dafa gën a bëri ndax booba am na benn phénomène bu xew muy phénomène rëbbu nit maanaam rëbbu nit nga xam ne toxal nañ lu mat million ci ay africain yóbbu leen Amérique mu nekk mbir yoo xam ne am na lu bari lu ca xew ba wax nañ ne sax lu mat juróom-ñeenti téeméeri million bokk nañ ci ñi nga xam ne génn nañ àdduna njëkk ñuy àdd wala ñu génn àdduna njëkk ñuy jàpp ñooñu ndax dangay ñëw ci dëkk daal di def attaque dëkk ba loolu la ñuy wax xaaraat taal seen néeg ya bu ko defee mag ñi mën a daw daw jigéen ñi am kàttan mën a daw daw ñu jël xale yi ak jigéen ñi jàpp leen yóbbu su ko defee boo demee nag da jaay xale bu jigéen bi am na loo koy jaaye xale bu góor bi am na loo koy jaayee masalan tey ci jamono booba li ñuy tuddee riyaal maanaam ñaar fukki riyaal jëm ba e, juróom benn maanaam fukki riyaal ak juróom lañ daan jaayee jigéen sans ci taar bi mu taaru wala ci forme bi ko yàlla bindee wala melokaan bi mu am noonu lañ daan jaayee jigéen léeg-léeg nga jëndee jigéen faneeru réal wala nga jëndee ko ñeent fukki réal wala nga jëndee ko juróom-benn waaye daanu passé juróom-benn fukki réal ak juróom bu fekkee ba tey maanaam dañ koy jaayee mu nekk ab góor eh, bu dee jigéen la bu dee góor. ñu jaayee ko lu ma téeméeri riyaal ba lu ko ëpp ndax laysa wa laysa zakru kal unsa xam ngeen ne góor bokkut ak jigéen ndax ar rijaalu qawaamuuna ala nisa ca loolu nag ci lañ nekkoon nga gis ne bokk na ci ñi ëppoon li ñuy jënd ci ay jaam ci jamono booba mu nekk ay buur buur yoo xam ne dañuy tabax seeni néeg seeni pale pale boobu dañuy bëgg lépp luñ fay liggéey muy bale ma muy muy raxas ma muy fóot ma muy tool ya la ñuy bàyyi ak la ñuy dundee lépp ñoom dañuy bëgg a toog rek su ko defee bàyyi ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy liggéey liggéey boobu mu nekk liggéey boo xam ne travaux force lay doon te itam amoo ci benn salaire mu nekkoon mbir moo xam ne ci réewu araab yi loola fa nekkoon boo demee Inde loola fa nekkoon boo demee Siin loola fa nekkoon boo ñëwee Afrique loolu fi nekk boo demee amerique loolu fi nekk maanaam ñi am doole di jaamloo ñi ñàkk doole kon daqu na ne kon ak njaam moom mënta nekk ak famille comme ni ko nit ñi jàppe waaye ñaar mën nañoo bokk sax ndey ak baay kenn ci ñoom nekk jaam keneen ka ca nekk ab gor ndax li tax mooy lañ tuddee jaam loolu nag ndax lislaam moo ko fi indi léeg-léeg ma dégg ñu ne lislaam njaam gi lislaam indi lislaam mosta indi ak njaam lislaam dafa fekk njaam mu nekk point boo xam ne nag am na leneen lu gënoon a itteel lislaam mooy fexe ba dindi subaa yi nekkoon ci boppu nit ñi mooy jàpp ne yàlla amut ñu wan leen na leen yàlla am na te kenn la ku ñuy jaamu jaamule leen yàlla def leen nit ñu nekk ay nit ba nga xam ne lépp lu ñuy nit di jëf danañ ko jëf def civilisation ci ñoom bu lislaam di topp nag ba ci mujjanteel gi l'islam doo ko ñëw nag tàbbi ci wàllu njaam naka la ko fiy dindee kon lislaam maanaam tëral na yoon woo xam ne manees nañoo jàpp ne sax yoon woowa lislaam dàq na njaam ba mu set wecc ndax fi mu tëralee loolu moom moo tax l'islam teg ay solution yenent bi sallallahu alayhi wa dénkaane ci euh, su ko defee l'islam dénkaane ci danañ ci ñëw mbiru njaayam jaam nag yàgg même amut uute maanaam euh, ci arab yi wala keneen ku dul arab yi moo xam ci nit ñu ñuul la wala ay tubaab amutoon uute ndax mbir mi lenn rek la mooy am ñoo xam ne dañuy jël rëbbu ay jaam di leen jàpp di dem di leen jaay am ñoo xam ne dañuy dem di jëndaat ci ñooñe di jaay ñoom di ko jaayaat mu nekk loo xam ne commerce la woon boo xam ne dañ ko doon def ci doomu aadama muy loo xam ne xam ngeen ne lislaam mënu koo rafet lu mukk ndax li tax lislaam mënu koo rafet mooy lislaam dafa ñëw indi musawa dégg nga ak yemoo ci mbooleem ñëpp te loolu jàpp naa ne bu ñu ñëwee ba ci kanam da xam ne lislaam pare na bu yàgg ci masala bi ak ay taxawaayam waaye bu ngeen fàttalikoo Makka amoon na benn waaye bu ñu daan wax Abdullah ibn Jud'an Abdullah ibn Jud'an doon koo xam ne bokkoon na ci commerçant yi gënoon a am doole ci Makka doon jënd ay jaam di ko indi di ko jaayaat waaye ngeen fekk ci biir màkka lislaam fekk fa ay jaam yoo xam ne ñii njëkk lislaam la lislaam ñëw ñu reconnaître lislaam ànd ak lislaam lislaam génne leen ci seen ak njaam googu indi leen ci gore génne leen ci coono bañ nekkoon indi leen ci noppaay noflaay génne leen ci sànni giñ leen sànni woon ci biti indi leen ci biir nit ñi masalan tey ku mel ni Seyd ibnu Aras xam ngeen ne dañ koo këfoon booba mu ngi nekk xale ñu jaay ko ci marché Hukaasa benn kenn ci mbokki Xadija yi jënd ko indil ko Xadija muy Sayd ibn Haarisa beneen bi ci tegee mooy xam ngeen ne Salmaanu Farisiya jaam la woon boo xam ne jaamukatu yàlla la woon gu mag di wër dëgg di dem ci ay boromi xam-xam yoo xam ne ay làbbe lañ kum ci jógee boo demee bay génn àdduna nga yebal ko ci keneen parce que ku guddoon fan la moom Salman ba ki ko mujjee tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dem ci yoon yi ñooñu jàpp ko jàmb pour ñu yóbbuwaale leen ñooñu jàmb ko jaay ko kon gis nga li tàqale diggante gor ak jaam mooy doole not notaange rek la notaange mooy fekk naa la nga nekk gor nit ñi ñoom ñëpp gor lañ ma not la jël la jaay la nit mu def la nga nekk ab jaam xool leen kissa yent yàlla yusuf alayhi salaam su ngeen ci xoolee dangeen ngeen xam ne sax nekk ak jaam du xaste parce que yuusufa salaam ab yonentu la ñu sànni ko ca teen ba ay mbokk ma ko ko def am ñu ñëw for ko jaay ko njëg gu néew ñooñu dem jaay ko ba jaay ko buur ba waaye suñu borom subhanahu wa mujj def ko mu nekk buur yëlif ñépp kon loolu dangeen ci déggee ne ak njaam ab pexee la ci doomu aadama ak kattan la ak jaay doole la waaye tamit lislaam ali lislaam moom ñëwul ngir loola beneen bi ci des mooy ngeen xool Bilal ibnu Rabah ni mu jegee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon première ak parole bi mu amoon jaam la woon su coono bi jaam la woon Sumayya yaayam jaam ak niñ ko doon sonnalee ak lam daj waaye tamit suway ba mi nga xam ne bokk na ci ñi nàmpal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaam la woon kon est ce bëgg a wax ne bu doon ne njaam dafa nekk ab famille bu ñuy xool waaw kon ki nga xam ne jaam nàmpal na ko mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lan la waaye yemuñ ci ki yar yonent bi sallallahu la woon ci abdullahi ibn abdul mutalib kon jaam la woon ñii ñëpp yàlla dafa am loo xam ne histoire daf koy jàngale ngir nit ñi mën a am xeewte kon nit ñi judduwuñ nekk ay jaam ay gor lañ juddu nekk boo demee ci xasidaam Seydina Ali ibn Abi Talib bi nettali na ko muy xasida boo xam ne bu yéeme la te bu am solo la bu jar njàngat la waaw eh, mu nekk xasida joo xam ne xasida ju am solo la te itam wax dëgg yàlla ju bëri njàngat la nekk ci diwaanu Seydina Ali ibn Abi Talib Euh, maa ngi koy dugal ngir ñi ko amut am ko ñi ko amoon it gën cee fàttaleku muy annaasu min jaati timsaali ak faaw abu umu aadama wa umu xawaa am na benn lafsu boo xam ne dafa def na annaasu min jaati timsaali ak fa annaasu min jaati abaa la def nit ñi ci wàllu misaal wala ci wàllu baay ñoom ñëpp ay nawle lañ amul kii gor la kii jaam la lu tax mu ne abuhum aadamu seen baay mooy aadama waaye nag wal ummu xawaau seen yaay moo xawaa mu ne nafsun ka nafsin wa arwaaun musaakalatun wa asumin xuliqat fiha wa aadaau bakkan bakkan rek la ruuxu yëpp bokk niroo kon kiñ jàpp ne jaam la ak kiñ jàpp ne gor la benn lañ kenn ci ñoom yax nga leen yàlla bindee yoo xam ne daf ko oddu daf la nga nekk ay cër mu teg ci ne wa innama ummahaatu nnaasi awxiyatun mustawdiaatun walil ahsaabi abaau kon gis nga ne yaay yépp kenn ku ne ab mbuus nga boo xam ne dañ la dénk te lañ la génne mu ne nag fa in yakun lahum min aslihim sarafun yufaaqiruuna bihi fattiinu walmaaw bu fekkee ne am nañ dara lu ñuy puugare woo ñoom ci seen ak cosaan mooy dañuy puugare woo ne ban lañ ak ndox kon loolu li nga ci mën a déggee mooy doomu aadama yépp ñoo bokk yem maanaam doomu aadama yépp ñoo bokk yem kon su ko defee loolu lañ ci mën a jàngatee kii gor la kii jaam la dëgg-dëgg loolu amutoon mu teg ci ne mal fadlu illa li ahli l ilmi innahumu ala alhuda liman istada adillahu wa qadru kulli mriin ma kaana yuxsinuhu wa lirrijali ala dégg nga ala alafali asmaau wa diddu kulli mriin ma kaana yajhaluhu waljaaciluuna li ahli alilmi aadaau fa in atayta bi juudin min sawi nasabin fa inna nisbatana juudun wa ulyaau ba mu jeex kon mu nekk ak joo xam ne joo am li ma bëgg foofu rek mooy eh, maanaam lii système bi fi nekk système u jaay doole la te daf fay yàgg l'islam nag def na ci dëwra bu am solo lool boo xam ne ku ne xam na ko masalan damay ñëw saalum damay ñëw saalum parce que dégg naa ku dugg kayoor dégg naa ku dugg jolof damay ñëw saalum masalan saalum ku ne xam na ne dafa am lu ñuy wax buur saalum buur saalum nag nekk koo xam ne doole ji yépp moom moo koy yor buur Saalum moomu nag soo ñëwaan mu ngi balaase këwun këwun foofu lañ daan def seen gàmm googu nga xam ne gàmm gu doy waar la woon muy gàmm goo xam ne jigéen ak góor dañ daan jaxasoo di def la leen neex buur Saalum moomu dafay am ay bëlëb bëllëb bëllëb buñ ko waxee da nga dégg nit koo xam ne dañ ko tëddee bëllëb ndukkumaan parce que lan moo tax mooy bëllëb da nekk ci ndukkumaan maa ci booru Kaffrine ñu ne foofu la bëllëb ba ne waaye bëllëb boobu tamit dafay am ay barab yoo xam ne dañ koy tuddee bummi am na bummi Kaymoor comme li nekkoon fii tey bummi Kaymoor bummi Boofi bummi Kacawaan bummi Mandax mu nekk ay dëkk yoo xam ne kenn ku ne bépp bummi bu fa ne li nekk ci sa suufu raison ñépp yow yaay seen seet dëkk bu la ci bañal nga attaqué leen jàpp ña neex def leen ñu nekk ay jaam di la liggéeyal ñu tuddee leen ay jaam kenn ku nekk ña nga wër mu am fa ñoo fa jàpp tey boo demee boo am na ñu ñu fay tuddee jaam ñi leen ko def mooy bummi ya fa nekkoon waaye du benn njaam goo xam ne dafa tegee ci lu jaay doole nga dem kecawaan naka noonu nga ñëw kaymoor gii ñu nekk naka noonu nga ñëw eh, dégg nga eh, naka noonu nga dem bëllëb ci Kaffrine naka noonu nga dem ci bummi ca booru Kawun naka noonu fenn fu ci nekk rek ña nekkoon di ay buur doon jaay doole ña ca nekk di leen bayloo force di leen bayloo ay nàmm di leen liggéeyloo ñu leen di indil di leen taxanloo di leen bayloo àll bi di leen defloo lu nekk dégg di leen jël di leen jaayaat kii léeg-léeg mu jël am benn kum jaay yóbbu fale kii jël jaay yóbbu fale yooyu nekkoon mbir yoo xam ne mbir doy waaye nag bokk na ci liy tegte ne loolu yëpp ak tooñaange la boo xam ne ay nit doon nañ ko taxaw di ko tooñ te suñ borom subhanahu wa taala nag bëggut ak tooñaange loola nag yàlla def na mu law ba am na ci ñoo xam ne tey dañ koo nangu waaw bu ko defee loolu moo juróon yi nga xam ne am na fi waaye nag mu nekk aada boo xam ne dëgër na fi lool lenn rek moo ko mën a dindi mooy kilifa yi am taxawaay buñ ci taxaw benn ñaareel bi mooy ña nga xam ne ñooñu lañu koy tuddee ñoo ñooñu am seen fullaay bopp ndax dangay gis ñenn ci ñenn ci ñoom sax ñu ñàkk fayda ba nangu ko ndax gis naa ci koo xam ne bi mu demee ba bëgg juróomeeli jabar maanaam dafa am benn famille bu ñu ko ebal mu dem fa ngir jënd fa kenn takku ko xam nga loolu kon nit ki nangu dara nag ñu teg ko ko wax dëgg yàlla loolu nit kenn mënu ci dara waaye nit ñi ñoo war a am fulla ju toll ne xam ne loolu ak notaange la jeex na kenn moomut kenn ku yàlla li Seydina Xasan waxoon mu ñëw ci aju balaaxa mu ne na nga fexe ba wala takun abdan li xayrika bul nekk jaamab keneen wa kun abdan lillaahi nekkal jaamab yàlla waaye bul nekk jaamab keneen loolu nag ak njàngale la mu rey eh, li yàlla wax nag ne inna allaha la yuqayiru ma bi qawmin xatta yuqayiru ma bi anfusihim yàlla di soppi li ci aw nit ndara la ca nit ña soppi ñoom nit ña soppi la fa seen biir loola moom mooy li nga xam ne mooy dëgg ji mooy ñi nga xam ne ñoom lañ koy tuddee di leen ko wax ñoo war a am xeex ngir loolu jox fa tey masalan jaam bu nekk dañ wax ne kii kat habdan mamluuk la jaam buñ moom la waaw kuñ moom am na ku la moom léegi kan moo moom que moom dafa am loo xam ne moo ko war ci yow am lu la war ci moom léegi kii nga xam ne moom lañ moom tey fii ñu tuddee ko ab jaam kan mooy boromam kan moo ko sañ a jàpp ñëw dem jaay kañ moo ko mën a liggéey loolu la ko neex loolu yépp dàqu na léegi nag bu sart yàqoo jëf dafay yàqu beneen bi arab dafay wax ne ida xurrifa sabab batal al ajab kon sabab buñ ko xamee la waraloon kéemaane loolu dafay yàqu kon lii nga xam ne moo xew léegi du dara lu tegee ci benn yoon xeebaate rek moo fi nekk te it nit ñi war nañoo bàyyi xel ne ñun ñëpp ñoo bokk ndoor ci aadama aadama ak xawa rek ñoo amoon ci àdduna xawaa ëmb ay ëmb mu nekk ñaari doom ñaari doom ba mu gi ay xeet ñëw xaabil ak naabil ñëw xaabil ak xaabil ñëw xaabil ak xaabil nekk fa la fa xew-xew ci seen diggante nit ñi di jurante nit ñi mbooloo mi di gën a bari naa xalaq naa ko min zakarin wa unsa góor ak jigéen ñëw dégg nga wajaal naa ko suuban wa qabaayila ay famille commencé ñëw ñii xaaj ñi nekk ay tubaab ñi nekk ay naar ñii nekk ay lii ñi nekk ay lii ñuy xaaj dégg nga ñu def leen ngeen nekk ay xabaayil xabil bi nekk nangam ñii nangam ñu dem ba mu yàgg ñii xaaj ñu ne ah force kat nit ñi dinañ xam fuñ dëkk ñu am ñu tuddee ay tabaxkat ñu ne ñii kat ay tabaxkat lañ ñu tudd maçon maçon doog a ñëw ñu dem ba mu yàgg ñu ne nit ñi faaw ñu am maanaam mbay lu ñuy dundee ñu nekk ay baykat ñu dem ba mu yàgg ñu ne nit ñi kat ñoo ñàkk ay fetal yu ñu xeexee ki jaas yi ñu nekk ay tëgg di ko defar ñu dem ba mu yàgg ñu ne nit ñi kat mënuñoo ñàkk na am. ñoo xam ne ñooy nettali seen wax ñu tuddee ay xawa xawaal mooy wax kat ñu tuddee ko géwél ci ñun dégg nga ñu di nettali ay mbir yi te ñooña kenn warut leen a rey kenn warut leen a toroxal dañ leen war di teral ngeen ñuy nettali ndax histoire dañ koo soxla ñooñu nekk ay géwél génn côté bi ñu dem ba mu yàgg ñu naa mënta ñàkk kat force ñu am ay ñoo xam ne danañ wulli ay der ñu di ko jëfandikoo ñii ñu tuddee leen ay huude ñii ñu tuddee leen ay leen xeet yi di tàqale ko di tasaaroo ba jëm ci jamono nga gis ñu ne ñuy jaam lañ ñii ay gor lañ waaye ñépp ay gor lañ jaam xamut su ko defee kon lislaam saxaw na ci dàq ko dàq ko ci lislaam dàq nag yonent bi ci njëkkee naka la bi def waaw bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, li borom xam-xam yi wax xam ngeen ne moom bi mu ñëwee ak fekk ci système bii di dox xeex na lu bëree bari bari lislaam xeex na ko ngir jeexal ko fi parce que looloo taxoon sax mu teg ay sarf ci ay mbir ne ku def nangam nanga nga goreel ab jaam te itam daan wax lool ci ko goreel jaam ban yoon lay am e, lislaam may jaam bi ci boppam mu def li ñuy tuddee mukaataba mën a jot boppam ba bu demee ba lott ci jot googu sax dañu war a jël ci asaka yi wala ci baytul maal mottalil ko ko kon lislaam moom bëggoon na système bi jógee yonent bi sallallahu alayhi wa rek ci boppam xam ngeen ne mooy ki nga xam ne njëkk naay xeex ci loolu ndax ku bari woon ay jaam yu nekkoon ca ronam la Eh, wax nañ ne rek moom ci jëmmi boppam rek goreel na lu mat 63 jaam yoo xam ne goreel na leen eh, sayyidatuna Aïcha moom i tamit goreel na lu mat 67 jaam kon yonent bi lim dund ci ay xat goreel na ko ci ay jaam eh, su ko defee lañ goreel ci ay jaam ci jamonoom bari na lool xam ngeen ne ku mel ni Sufiyatu bintu Xëy ibnu Axtab ku gannaaw si yonentu goreel na ko amut ci waaye takku ko kon am na foofu tamit lu mu bëgg a wane parce que non seulement lu ñu war a xeeb ndax ab yenentu jaar na ci ñu tuddee ni jaam la muy yuusufa euh, dégg nga ay man ki yar yenentu bi ab jaam la nit ku ñuul la woon yenentu bi ab jaam la seyd ibn bokkoon ci ñim gën a bëgg tam jege woon ko yar ab jaam la dinaa ñu baree bari ñoo xam ne xam nañ xista gannaaw lislaam te mu arriqoon yi bind ko saxal ko Eh, l'islam nag wax dëgg yàlla nit ñi mu amale biñ doon def ak ñoom rafetoon na jëlal rek ku mel ni eh, Abdourahman ibn Awfin nga xam ne bu toogaan ci seen biir doo leen xàmme jëlal Abu Usayfa ci boppam nga xam ne saalim jaamam la woon ñu ko wax Salim ibn Usayfa waaye bi l'islam dàqee loolu mu mokkal alquran moo ko daan jiite bokk na ci li ba meroon mer bu mat bés mu ñëw këram Momar Hind ñëw di ko setti ñëw fekk saalim di leen jiite wala fekk ñu toog di bokk lekk ñoom kon jaam daanoo bokk ak moom sax lekk jëlal Seydina na ibn al-Khattab mi ma tudd léegi nga xam ne liggéey bu mag la ci doon def ngir ñu bañ leen a gorojal waaye ngir tamit ñu jot or yi jëlal Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu moom itamit taxawaay bi nga xam ne doon na ko ci def waaye l'islam fekk leen ñu leen di dàq maanaam Bilaal mos sa nangoo du toog ci mboolo suy joxe lekk daf koy joxe pare ca waaye du fa toog waaye gis nga Bilal ibn mu ji na nekk koo xam ne taarix marqué na ko te dootu ko fàtte mukk ci dundam ndax liggéey bi mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na rek ñu ne Bilal noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi jëlal Suaybu Ruumi Suaybu Ruumi nekkoon na koo xam ne moom tamit jaam la woon waaye gis nga yàlla may na ko hissiya boo xam ne néew na ku ko am ndax doon na jiite sahaaba yi nekk imam bi Omar ibn Xattaab génne àdduna moom moo ko jëlal Sayd ibn Haaris Sayd ibn Haaris xam ngeen lim séq ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla yonent bi for jox na ko sax mu nekk ab xale euh, dégg nga mu euh, jox na doomam euh, nu mu tuddati Usaamatu ibnu Sayd mu nekk ab xale parce que Ummu man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na kan moo koy takk mu nekk nitu aljanna mu jël Yasiid na man Yasiid takk ko am ci doom ji muy Usaamatu Usaamatu boobu. Euh, euh, sayid takk ko sayid jur ci doom muy usaama usaama boobu ci ñaar fukki ak juróom-ñett wala ci fukki atam ak juróom-ñett ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam rangal garaat bi yonent génne àdduna xare bi njëkk gi moom moo ko moo ko jiit jëlal ku mel ne xasanul basri tey nga xam ne baayam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo wax ne jaam lañ ñoo xam dañ leen goreel ci lislaam euh, dégg nga yaayam tamit nekkoon ko muy ummu salama nekkoon mo mo wala ci sayyidatu ummu salama nekkoon koo xam ne faqi ala ku bëri woon xam-xam la taarix dootu ko fàtte jëlal Muhammad ibnu Sirin taarix dootu ko fàtte jëlal Ikrama mi nga xam ne mawlaay la woon ci Abul Abbas ci Ibnu Abbas taarix dootu ko fàtte jëlal Salim mi nga xam ne moo doon euh, mbaa yàlla ci Abi Xusayfa moom laa wax léegi mu bokkoon ci ñi njëkk a mokkal alquran te rafetoon mokkal ga kon ñii ñëpp boo leen jëlee Seyd ibnu Arasa naka noonu dëgg-dëgg da xam ne lislaam am na taxawaay bu rafet yonent bi nag ba balaa muy génn àdduna mu ngi dénkaane ma ma malakat aymaanakum wa ma malakat aymaanakum li seen joor moom bi wax ne ku mën a goreel jaami na leen goreel te firndeel na ko ndax juróom benn fukk ak ñett goreel na leen firndeel na ko ndax soxnaam sayyidatuna Aysa goreel na juróom benn fukk ak juróom ñaar kon loolu mooy li nga xam ne doon nañ ko ci indi ci ay témoignage ware na daal lii fi des moom nekkatul lu mooy système boo xam ne système bu fi nekk la muy xeebante gu nekk ci dëkk bi ñu naan eh, dégg nga tëgg bi duñ ko takk ndax nangam kii huude la duñ ko takk ndax nangam kii takk géwél la duñ ko takk ndax nangam kii nangam la kii du nawle kii kii du nawle kii te ñëpp ay nawle la benn la nit ki li muy gënee nit mooy ragal yàlla te loolu la aaya ba bi ma ubbee fa la tëjee mooy inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a ragal yàlla ci yéen daal mooy ki nga xam ne moom moo gën ci yéen kon yaan yàlla defal ñu jàmm ak topp li ci dëng ngeen xam ne ci ñun la eh, li ci jub ngeen xam ne ci yàlla la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam sëriñ Mouhamadou Habib Ndiaye maa ngi lay siyaare bu baax a baax macha allah waxtaan am na solo rafet na yàgg suñu mbokk de sëriñ Saliou ne dañoo mën identifié ñaar numéro yëpp rek waaye yéen ñaar lañ boole bi wax dëgg yàlla li ngeen indee ci waxtaan yi rafet na kon daal bu bu fekkee dégg nañu bu baax a baax ak njaam am na Sénégal waaye lislam indi ko fi tey mën nañu jiitu tubaab bi kon lislaam andiwu ko fi moo fi gis tubaab bi waaye li daama ngi nekk Sénégal li ko fi indi itam moom doole dong la doole la woon waaye li nga xam ne kay moo ci metti mooy naka la ñuy fexe ba mu jeex tey nag su ne nii sëñ bi yow yaa ab saalum saalum nga man ma di kajoor kajoor ñenn ñu nekk tey jii bala nga xam ne liñ naan jeex na doole la woon loolu jeex na jeex na bala ngaa xam ne jeexu tey jii nga bëggoon soxna foofa say mbokk yëpp ñooy taxaw na du ci dal ñooñu kat ay ngal lañ seen i maam ay ngàll lañoo du la dañ leen bàyyi nga xam ne pression bi ñu teg day day day day demee dem mujj doo doo doo mën a accepté ko am réew nag fekk ñu ngi taxaw naan ñeew kenn du jëlee ci ñoom soxna duñ jël ci ñoom duñ jël ci ñoom wax discrimination ba tey ma nga seen diggante ko Sénégal moom bu la ci kenn tane ak xeebaat ci wàllu xeet ci ci ci wàllu xeet doon na ci suñu aada yii te jëlee ko fi jafe na lool ak loo doon doon doon jàmbaar boo bëgg woon soxla tey jii ak ay ngàllu gee say mbokk ñoo jëkk taxaw na lu ci dal loolu moom lu ñu gis la lu ñu dund mën naa am neexu leen wala neex leen waaye nag wax dëgg yàlla lëngoo neex waaye ko ba ma doon mbaggam ay nit su fekkee da ngaa dëkk bi ñenn ñooñu nangu nanguñu laa may jabar nanguñoo takk say say doom ah loo ci parce que ñoom prétexte ba ñu yor mooy ay maam ay ngelaw lañu woon ay jaam lañu woon man daal sëñ bi Ndiaye maa ngi ay siyaare baax a baax waaye daal problème bi daal moom doole ko fi indi woon waaye li ci gën a mooy ni ñu ko suñu bopp yi ñun ñëpp ba tax ñu ciy bàyyi xel lu ma jaaxal la te it naka lañ koy xeexe ba jóge fi ba mu jóge fi loolu dëgg yàlla ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax a baax si loolu daal ak njaam moom yàlla xam ñu naan jeex na Sénégal jeex na Sénégal sore naa jeex Sénégal ñàkk na loolu ci wàllu sëy ba tey tey la gën a gën a taxaw ci Sénégal te la plupart suñ ko teg nit ñi ñi ci la ñeeño la man jiir laa ab jàmm la man ab soor laa ab dëmm la dañ koy toll ñett yi daane kuñ ci wàllu sëy ñett yi lañ la dàq réew moom nag bu ñoo bëggee taxaw naan jeex na fi jeex na fi jeexut ak ñàkk na loolu ci wàllu sëy ba ndëgëni ci li nga am biir Sénégal bi bari si lool di am Saloum di am Kajoor di am Bawol di am Fuuta salaamaaleykum wa rahmatullah waa xulja alxaq maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp di jégalu bu di jégalu bu baax nag ci géej gee dugg waaye xat-xati jamono rek mu mel ni seen waxtaan wi lu ama am solo la waaye muy xàjjaliku ci waaso benn bi akuk njaam boo xoolee nag benn bi euh, waaso socialisation moo koy indi mooy mbooloo ni muy tëggee nekkinam bu dee ak njaam système juridique moo koy indi mooy àtte yañ tëral na muy xajale àqu nit ñi ndax boo xoolee bu ñu jëlee njaam bu njëkk njënd moo ko doon amal wala guerre te booba àq yi ak yelleef fi dañ ko doon àtte ci njënd di ko doon àtte ci guerre xeex jàpp jaam wala jënd jaam nit ñu jàpp ko di ko jaay mu nekk commerce kon nit lu nekk droit lal ko léeg contrat la léeg yoon la ndax droit naan ne mën nañu wax sax droit international nga xamante ni dëkk yi ni leen daan daggee fi muy yem ak fi muy tàmbaleeg yu bari ay guerre ak ko déterminé te ci guerre yooyu tamit dañ ci loon jàpp jaam ci système juridique bu mu munti doon l'islam ñëw indi système juridique am boo xam ne tamit dafa am nu muy àttee jaam waaw ñu dem ba jamono jaam jeex jaam moom jeex na ndax jaam ci droit du nit amul àq amul yelleef daanaka marchandise la rek buñ koy xool ci droit su bii ñu gën a jege moom la ñuy wax amul personnalité juridique amul li koy tax a mën a am àq ak yelleef ndax nit koo gis muy dox walla société boo gis mu taxaw ne li tax mu mën a jënd wala mën a jaay wala mën a am ay àq mën a am ay yelleef loolu la ñuy wax personnalité juridique loolu ku am ku nekk jaam daanaka doo ko am lu ñuy jënd nga ak lu ñuy jaay la ndax nit ki bu xasee ba am personnalité juridique moom kenn mënees koo jënd mënees ko jaay mooy naan lom est or commerce nit dafa génn ci ñënd ak jaay jëmmi nit waaye bu fekkee jaam nga moom da ciy nekk ñu noonu nag ba loolu daj bu fekkee mbiru waaso la dafa tegu ci socialisation mooy mbooloo na muy tëggee nekkinam ndax dafa am loo xamante ni dañ koy jiital waaye lu mënta nekk ñëpp yem moom amul ñi dañuy ëppale ñi ñàkk ñi xam ñi xamat donc nit ñi yemuñu te kenn du mën lépp ku ne dafa am fooy féete ñu nekk ay jëndkat ñu nekk ay jaaykat ñu nekk ay tëgg ñu nekk ay sàmm ñooñu noonu noonu nag nit ñi nga xamante ni ñoo bokkoon lu ñuy def ñaare dañ doon bokk fu ñuy ne ci kaw loolu société yi am nuñ ko tëggee boo demee Inde tëggin bu metti lañ ko def boo demee Mali gi tëggin bu metti lañ ko def Sénégal ñu am luñ ko tëggee ba pare am luñ ci lal waaye am lu jógee foofu ñu lal ko ci ñu ne boo bokkee si nangam nangam sangam mais loolu organisation sociale la mode de socialisation la léegi nag mode de socialisation nag day dem ba am jeexital ci nekkin yi mu am yuñ ciy saxal buñ ci saxalee yenn am yuñ ciy dàq saxal ci ni diw sàngam bu nekkee fii nii lay mel diw sàngam bu nekkee fee ne lay mel ñu saxal ko ko rek mu ne ci xel yi waaye boo gisee lañ ca saxaloon yépp day dem ba jamono da koy dindi day dem ba jamono daf koy dindi mooy kii moo féete kaw kii moo féete suuf demoon nañ ba mu nekk ci juddu ñu ne ñii judd fii ñoo féete kaw ñu nekk ci suuf nekk ci suuf ñu dem sof ci ñi bokk ci église yi bu fekkee di jël nañu exemple européen bi ñu nekk ci église yi ñoom ñooy noble yi ñu ci des mooy li wax le bas peuple wala le tiers état euh, yooyu doon am ay jeexital doon am ay jeexital ñu dem ba jamono dindi loolu jamono dañ dem ba jamono dindi loolu waaye mu am yu ci des ci société yu mel ni Sénégal wala Afrique yii nga gis yoo xam ne am na yu deme noonu yu fiy des ba mu am ak tàqalikoo ku métti tàqalikoo gu nag li ko indi boo gisee mu ñu wax régime endogamique waaso yi dañ newoon naa la ñun ñi bu ñu fa faree lu wax tëgg tëgg yi ñoom dañuy doon tëgg di bokk fu ñuy dëkk ñu jékki-jékki nag yem ci seen biir di tëggante am ay aada yu ñu sos seen biir géwél yi def noonu ñeeño yi def noonu leneen firdo yi def noonu noonu léegi nag ñoom ñun yem ci seen biir nag ba tàqalikoo ak ñeneen ñi nga xamante tamit saxwul ci lu dul ni ñu tëggee société waaye ba ñu demee ba jaxasoo yokk société da gis fu bari foo xamante ni yooyu dañ na fa fu bëree bari bëri Europe lu fa tar la woon waaye dem na ba dañ fa Sénégal ndakaaru njaay gi am mu ngi fi waaj a dañ lu bëree bari bëree bari bëri te it da ngay seetlu ni alal dindi na loolu alal ñaare bu nit ki amee alal rek yu bari da koy wàcc Sénégal gii man gis naa fi koo xamante ni bàyyam borom ndombo tànk bu mag la fi woon doomam yi amoon am fi ay ndongo tànk yu mag waaye kenn mënu ci woot a am jabaru sénégalaise ndax it dafa am fu ñu leen dëkkaloon ne ay jaamu géwal lañu te ay ndongo tànk yu mag lañ fi am xam naa ñu taxawa ni fii rek ba ci kanam ñu jéem a xoolaat